Merci

deful benn dégâts yëngatuwul waxul dara ñëw nuyoo jàmmatante jàmm ak salaam mu dem yoon man def maa loolu ma sama dugg bi génn jéem si jabar mu toog si ëtt moo xëy suba ñu doon torturé da neex rek mu indi jikkoy jikkoy kàcca baam yooyu rek dof dofu rek nee na kër gi laay teg pression ndax li ma doon vivre fee laa bëggoon ñu vivre ko ngo waxee def dara ëpp ko dara xuriw ko waaw ma dem côté garage te ñëw maara laay seeti ji maa ngi ñëw maara laay seeti maara jatara sama xarit boobu ci ah, ma daan woo téléphone moom laay seeti

ñibbil sa kër baay gërëm nga doon eh kuma yow nga ñibbi de loolu benn bu bees loolu <laughs> loolu woy bu bees wàcce sa sa sa tànk ñibbi moom xanaa xanaa beneen yoon waaye eh beneen yoon ya, ba suñu juddu waatee ah, waaye bii moom ñibbi déedéet ma may laaj yoon laaj yow si laa nga nekkaat si topp kaay ngay toppaat nah, kaa dafa gaañ ok yàlla bu ma gis kii yàlla bu ma ko gis parce que lii ba xasee ba tam virus lay nekk day foo dem te fenoo da am problème.

baax na baax na baax na léegi comme loolu demee c'est la neex nga def noonu dem wala nga dox yow doxala rek yow xam nga man xam naa doxala rek waaw encore merci merci beaucoup jërëjëf jërëjëf sale. No son ni en el sí. Mientras que hombre, algo muy lluvia de ese teléfono, se eh, te ven y vuelven a su celular. على سكون ابو كذا هو يقول لي يقول لي يقول لي سيدكم من بين سك فهو بعد سد كوي تعرف المحبة ده بيزنس كده بيجي يعمل كده عم يعمل كده عم يقول pour léegi nii parce que gis na la moo tax defatuñ ko ndax. waaye yow man ak yow ku ci kër gi aw ma droit su la bi dee na weer bi sori na bu weer bi deewee ngeen xam ne sama am xaalis.

mooy superficie bi yëpp ñu supprimer ko waaw def inconnu wala ngeen di ñaq ci inconnu man ay man ay yàlla baax man ay mbuutu maçon laa am. ah mbuutu maçon ah ak ak Lamine mécanicien yooyu yëpp <laughs> ay gel la quoi. jërëjëf merci beaucoup. boobu nga loolu rek. ana mbër bi mbër bi. saa waay jàpp. ay waay waay waay waay li xëy na ko def. est-ce que gis nga ko bi nga yeewoo léegi. ok léegi nag yow saa waay dara dara dara dara dara ku bokkul dërëm bokkul. réewante dong la woon nee na comme waa kër gi ñoo ko ñoo ko ñoo ko yóbbuwoon fële da da moom moom tamit daf ñuy daf ñuy traumatisé daf ñuy daf ñuy tëj. dara dara. man dama toog gisuma yaayam daa xam daan wax na dara yaayam boo tax yaayam yow après dinaa la woo encore euh, sa liggéey bi am na tuuti euh, lu parce que kii nekkoon si kër gi di di di kooku dara jotu ko moom la neexoon ñu traumatisé waa kër gi rek dara jotu ko boo xëyee mën nga toog si buntu bi amul benn problème ok li mu la jox noonu nga téel ma ba si kanam tuuti comme d'habitude